nit ku yiw la woon nit ku dal la woon nit ku mën a jox nit cër nit ku xam aussi état ak diplomatie ni muy doxe man jànge naa ci moom lu bare bari ndax yàlla boole nañu ay configuration politique yu yu yu bari moom mu nekk ci pouvoir ñun ñu nekk ci opposition ñun ñu nekk ci pouvoir moom mu nekk ci opposition wala ñu bokkando nek ci opposition wala ñu bokkando seq pouvoir bi mais amul ben configuration bo xamni dana soppi ci jikkoom ak cofeelam ak nimuma dara dara musul xajam suñu diggante même bu ñu sur le plan politique dinañu ko waxtaan ci njëkk ak teraanga ak sutura vraiment sur le plan strictement personnel sama m'a la ça sama xarit la woon justifié ça justifier sama à l'occasion de l'hommage national qui lui est rendu et qu'il mérite amplement Tanor ku xol ci mom xol ci

xamna bi mu joggé ci pouvoir bi ak station ba mu ca nekkoon ba mu fay joggé ak li traverser ak ni ko muñé ak ni ko téyee vraiment nit ku nit ku bax la dal nit ku mat la yàlla na ko yàlla xare aljana